demoon na bay simeeku yàlla rek a mën lii man du ma ànd ak kuy daanu lii dama bëgg ñu gëm ko macha allah ndeysaan macha allah macha allah macha allah bul jooy oh Sénégal am na ndam ndeysaan Sénégal am na ndam oh. macha allah yéegal gaaw oh Viviane gagné na trophée bi waay macha allah oh Viviane daa demoon simeeku di macha allah trophée bi oh Birane Ndour message woon na ma ko de ndeysaan oh Viviane xolal barke alxuraanu karim Gel gel gel gel gel gel. waay waay mu waay yow. macha allah macha allah macha allah macha allah.